الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر nee nañ tudd yàlla ci biir bis bii lu bari ak ñaari fan yi ci topp sax waaye nañ sant yàlla it lu baree baree bari ci bis bii ak ñaari fan yi ci topp kon du yow ma ak li ma surbin képp mel ni sama mbokk yi tabaarakàlla ñu sant xummaak loo ak mbuub ak ñeneen ñépp nañ ci lekk nañ ci naan waaye nag buñ fàttee jaamu yàlla kon jaamu yàlla rek a tax ñu dikk fi nan bàyyi xel loolu te nag wa taawanu ala al birri wa taqwa nañu dimbalante mbokk yi ci mbaax ak ragal yàlla te ku bëgg yàlla dimbali la deel dimbali jaami yàlla yi ku bëgg yàlla yërëm la deel yërëm jaami yàlla yi doomu aadama suñu borom da koo fonk lim bind ci àdduna lépp li fi ne lépp doomu aadama képp ko tax a jóg lu mën a doon nag loo fi gis teraangay képp la kon doomu aadama gën li fi nekk lépp lu fi waaye am bari di ko fonk gën a la fonk doomu aadama ni yow ndax loola matériel bu doomu aadama di jëfandikoo képp la du wata du kër du leneen teraangay doomu aadama lu lu mu bari bari mën na ko ëpp nag lu mu bari bari rek mën na ko ëpp waaye nag bàyyil xel ci la ko jox ak lim la ci sant nanu bokk di dimbalante mbokk yi jamono yi bu jafee ñi yàlla dimbali ñu man dara nañ dimbali ñi ñu tane bu ko defee sunu borom dimbali leen képp ku faj soxlay julit sunu borom faj sa aajo ku dindi njàqare ci xol julit sunu borom dindi njàqare ci xol mbokki julit yi am na benn nettali bu gàtt boo xam ne bi jaar na ci diggante sunu sunu borom ak yonent yàlla Moussa alayhi salaam Moussa ab yonente boo xam ne da ko mayoon ci boppam su bëggee wax ma moom wax ak moom mbokk yi loolu liñ ci jublu rek mooy ñu mon mooy tonte xàq yi dox suñu diggante sunu borom yonent yàlla Moussa da ko laaj ne ko sa maandu gi laa bëgg nga won ma ko ak sa sell gi ne sulu borom ne ko demal ci barab sangam bo fa demee ci beut ndox ba fa nek nga tok fa nga làqat tay xol ab dir rek ben waay ju yor aw fas ci misal wala gawar rek war dara rek ñew ba tolloog barab bobé wacc fa nan ci ndox ma julli fa ndekata yoron na ab ngise wala mbuus gu hondara, dara defon na junni dinar mu bayiko ko ko fa def julli ba dem neen ba mu demee tu ab diir rek ab xale ñëw fa moom it naan ca ndox ma jàpp julli gis ngiis gi daal di ko jël dem bi mu demee tuuti rek keneen koo xam ne ay bëtum daa muuru ñu da ko wax silmaxa moom it mu ñëw ca bëtu teen ba bët bëtum ndox moomee jàpp fa julli toog bi mu toogee ab diir rek waaje fàtte woon ngiseem nga xelam dem ci mu dëppaat mbokk yi bi mu dëppee ñëw ba egsi ci barab bi fekk fi silmaxa bi toog mu jege ko ne ko man kat fii laa jóge sànq te am na loo fàtte woon mbuus gu def junniy dinaar te yow dong la fekk keneen ñëwu fi silmaxa bi ne ko waaw man nan laa koy gisee man gisuma kon xaw ma li nga tegoon mënuma ko gis waaye loola merloo ko moom jàpp ne keneen ñu mënu fee ñëw booba waaye nee daal di bocc jaasi rek ne ko ne ko deq rendi daal di profité ci bagage yi waa ji fekk fa dara mu daal dem yonti yàlla Moussa nag na suñu borom nag ah samaandu gi nag war nga maa leer lii nu mu demee suñu borom yebal jibril mu ne ko ñii kenn ku ne da ngaa ameelul àq sa morom mu ne kii ñu rey moo reyoon bàyyi kii kii ko rey ngor si jël ngise gi itam la doon liggéey ak waji bam amel kolol, ko lol ma baye ngor si moo doon liggéeyal bam amel mu ko lol waroon ko ko fay ta fayu ko maa lu tol li newoon ci ngise gi rek la ameeloon ko fi ngor si ñëw fekk fi ngise gi yóbbu gis nga kon ke jël na akam mooy jël na alalam kii ñu rayoon baayam mi ray na kii rayoon yi ñu wattandi ko ak suñu diggante Sëriñ Tuubaa mi ngi wax ci silkul jawaaxir na bari na lu dal nit ci jëmmam wala ci alalam wala ci njabootam fekk moo ko jëf waaye du ko bàyyi xel nag lu bàyyi xel jëf jëm jëfoon ba suñu borom nattoo ko lii lañ koy bàyyi xel ak lu sew la sa digganteeg sa njaboot sa digganteeg say dëkkandoo sa digganteeg say liggéeykat sa digganteeg sa digganteeg ñëpp rek rawatina sa digganteeg sa borom nag kon nañ ko bàyyi xel mbokk yi yonent yàlla yusuf wax nañ ne natt bi ko sunu borom nattoo woon bañ tëj ko ca kaso ba jaay ko def ko jaam jiñ ko njaaloo mi ngi sababoo ci maamam ibrahima wax nañ ne ñum àndaloon war ñoom ñu tànku mu mel ni feeñalul yërmande ci ci ci ñi topp ci ginnaawam képp la ko sunu borom nattoo natt googu ci ci sëtam kon deke maam dala jëf dara sax sunu borom nattu sët bi ca loola kon mbokk yi nañ gën a góor góor góorgóorluwaat bàyyi xel suñu borom suñu borom mi ngi kenn ku nekk li ci sa biir xol moo la ko gën a xam yow te kenn ku ne da nga dajeeg moom nag muy liñ doon wax léegi muy daw dee kenn ku ne dina taxaw sa buntu kër wan la boppam dañoo wax ne sëñ Tuubaa nga wax ci sirko jaay ne bi ko suñu borom bindee moom dee da koo gaaral malaaka yépp malaaka yi bañ ko gisee ñoom ñëpp dañoo xam junni at jëmmi dee ji dañ ko gisee dañoo xam junni at ñoom kon loolu garaaw na lool bañ bañ xeexee daal ne suñu borom xanaa li nga bind lépp lii ci gën a borom ne xanaa man mi ko bind maa ko gën a rëy daal ne Azraayil yow téye ko lii mooy sëb cër Azraayil dafa tiit ne ko kii lu ma koy téye ndax moom ëpp lépp suñu borom den tëbb ko doole juróom-ñaari asamaan ak doole juróom-ñaari suuf mu tool koo téye moom dee te kenn ko ne ci ñun tamit dana la fekk fa nga ne walaw kuntum fii buruuji musayyada foo nekk lu mu ruq-ruq lu mu kawe kawe dana la fa fekk li sëñ Moussa di wax ne lu waay ruq-ruq barab dee def sa gan di la wër bu yegsee loo ko berndeel lu du sag ruu du ko saf kon yàlla na doo doole dimbali yàlla na yàlla dellu dellu ñu kàttan ak njub ak xel mu dal mbokk yi alal dëgg-dëgg mooy xel mu dal alal dëgg-dëgg mooy xel mu dal te ñun Sénégal war nañoo gën a sant suñu borom bu wér a wér ndax jàmm ji ak dal gi ndimbal suñu borom képp la nag kon nag nañ bàyyi xel suñu borom nañ góorgóorluwaat bu baax a baax te topp ci ndigal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga lii ñuy def mu julli gi sunna la waa mbokk yi ñii daw fu ne jàkka yeeg jumaa yi fu ne nit ñaa ngi daw kenn julli see kenn julli ndax lan lu ñuy daw lan la ñuy daw dee la daw te yàlla ne foog ñu dajeeg moom kon nan ko bàyyi xel yàlla nag digle na faggu ak fagaru nag mënta ñàkk moom waaye nag laa tan salla bul fàtte yàlla de yàllaay faj mooy wéral mooy rey mooy dekkal boo liggéey mooy wërsëgalit nag kon waxtu yi jot na incha allah ñoo ngi baalu àq ñëpp yàlla nañ yàlla may ñu fekk fi ay déwén yu bare bari lii rek dafa neex ci xol ndax kori gi ñun ñëpp manqué woon lii manqué woon nañu muy dund xol